bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin wassalaatu wassalaamu ala asrafi al anbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati lwahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax calayna bi maxrifati lcilmi wa lana abwaaba fadlika wansur alayna xadaa'ina raxmatika yaa arxamar raximin yaa rabbal aalamiin mbokk yi bàyyi xel ci Sud FM seen rajo asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ginnaaw bi santee suñu borom subhaanahu wa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 ñaan ko mu def jàmm ci réew mi def ko ci réew yi ñu wër di massaw bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne ñoo dëkkee réew mi wala jullit yi ci àdduna bi yëpp jafe-jafe yi waaye jafe-jafe yi nga xam ne ñi ngi jànkoonteeg moom ci suñu biiru réew moo xam coono yi nga xam ne moo bàyyikoo ci waxante wi la wala coono yi nga xam ne moo bàyyikoo ci defante bi ñaar yëpp ay coon la te benn daanaka xaw tuuti kon nga ne woon jëru ko waaye àdduna ak noonoo ànd daa mel ne àdduna moom du jag mukk àdduna du jag léeg-léeg nag eh, ci aw waxin day soxla firi baat boobu ndax ab jullit moom lum jag-jagalit day gëm ne kër ga jag te doon ga muy sax mooy kër àllaaxira yàlla nañ fa tàbbi ci kër ga ñu gënal te muy aljanna jagadik àdduna nag mooy escale bi fi doomu aadamay jaar dafa gàtt waaye yi fi yemb te war a daje ku ko dajale mu jox la résultat wu la nga xam ne moom nga cey wut loolu boo demee ci ñi nga xamante ne jox nañ seen àdduna àq ak yitte ak nangoo tënku ci luwaa yi nga xam ne moom la àdduna tënk ngir mën a jag seen àdduna ngay nuru lu jag ala kulli xaal kenn ku nekk war naa ne ci ay jafe-jafe waaye ab jullit moom war nay am solution ci bépp jafe-jafe boo xam ne moom la am problème yi nag bari na lool bari na lool moo taxoon ma la doon wax ci wàllu nattu ne la léeg ay nattu yu metti yi ngay dundu na nga gëm ne borom bi da lay liggéeyloo ab julit loolu daa bokk ci li koy dëgëral li nga xam ne moo koy yokk courage gëmal ne borom bi moo lay liggéeyloo moo la fàttewut moo tax mu teg la ay nattu sëriñ Moussa Ka ca woyam wane woon na nattoo di kirkiraanu lawliyaa yi ku weddi laajal xayrul anbiyaa yi nee na kirkiraan muy esel bi nga xam ne ci la góor yàlla yi di jaar ngir yéeg jëm ci seen borom mooy nattu nattu boo seetloo la tàmbalee ca yonente yi alayhimu salaatu wassalaam ba ci ñi nga xamante ne ñooy jéem a xeencu mbaax ku la gën a jege borom bi moo la ëpp ay nattu moo la koy gën a mettile itam moo tax ab jullit li koy dal da koy jàppe noonu léeg mu nekk nattub sëy jigéen joo xam ne jafe-jafeem yépp ci biir néegub sëyam la léeg-léeg moog boroom këram la léeg-léeg moog njabootam la donte sax moog boroom kër moo ciy ëpp wala rek coowul couple ma waxe ko noonu nga xam ne léeg ku góor ki ne ci ay problème yoo xam ne bu wàccee sax du bëgg a ñibbi këram ndax ay détails yum fay fekk ak wax ju sew wax ju sew baaxut waaye gis jigéen joo xam ne itam amut ndeysaan dundu bànneex ci biir néegu sëyam te xamut fu mu koy jooytoo ndax waxoon naa ci suñ jotaay ba ne lu la mën a dalit boo ñëwee muñal rek lañ lay wax te nit dana toll foo xamante ni nag am na loo xam ne kenn du ko muñloo nit waaye suñu réew moom dala koy muñloo waaye sëy moom dagan na tàqalikoo dagan na moo tax ma waxoon ne am na fu nit di toll sax dañ ko war a wax ne ko nag sëy bi moom nañ leen tàqale ndax léeg-léeg ngay conseiller nit loo ko wax rek fekk na def na ko loo koy bëgg a digal rek fekk na def na ko boo ko ne na nga noppi bañ a tontu mu ne def naa ko koy waaye problème yi daa yokku na nga gën a neexal gën a naxtaan mu ne def naa ko waaye problème yi daa yokku ala kulli xaal buntu bu xóot a xóot la boo xam ne léeg dama koy coos rek daw dama koy coos rek daw ndax eh, su ma ci su ma ci duggee ba mu sori eh, Oustaz Alioune Sall ne ma eh, léeg-léeg nit ki day am yoo xamante ne nii bu koy kii bu cay kii ba mu kii lool du ko tey loolu léeg-léeg mu am yal nañu yàlla boole sàmm yal nañu yàlla boole suturaal te defal ñu jàmm. waaye jafe-jafe yi bari na lool di masawu bu baax mboolem ñi nga xam ne ñooy déglu baax ci grève bu démb bi grève transport bi ndax eh, am na ñu baree bari ñoo xam ne metti na ci ñoom ci seeni dem liggéey ak ñi nga xamante ne seenu dépense mi ngi aju ci seenu xëy te yombut yal na fi gëj lañuy jàmbat ak a méttitlu ña yor eh, saafara ca loola te war koo faj nañ ca taxaw faj ko seen kamtalaayal kattan ndax jàmm gënu ay te itam àdduna du jag waaye ñi fi nekk war nañuy jag-jagal liñ féq ndax mooy tax ñu mën a am ay résultat maa ngi doon waxtaanee lu jëm ci taamul ma ne la woon mooy rek ngay def méditation ci sa digganteeg sa borom maanaam nga cellantu di xalaat aka xool loolu nag borom bi da ciy wane yu bari ndax bëgg nga am yow mi nga xam ne yaa bëgg a méditer ci lan nga koy def ma waxoon la ne Eh, bind gim bind asamaan ak suuf borom bi nee na war nañ cee mën a xalaat xanaa waruñoo jàppe lool rek lu hasard noonu xanaa doo wax ne asamaan ak suuf moom nature bi moo ko créé mu jékki-jékki rek amal boppam noonu par hasard déedéet ab jullit moom day gëm ne am na yàlla am na bi amee ba noppi moo amal li am li am tam koy wër nag borom bi joxoñ ko ci bindu asamaanam ak suuf ma jàngaloon la aaya ja inna fi xalqi samawati wal ardi joojee borom bi wax ci suratu albaqara wa muy jeexal dane la ayatin mi xawmi yaqiluun ay màndargaa ngi ci ñeel ñi nga xamante ne dañoo am xel ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo seen xel ay kimaan yu baree baree bari lu baree bari mën nañ ko xalaat ci seenum xel mën nañ ko caa génnee mu amal leen njariñ ci binduk asamaan ak binduk suuf yàlla nee na naka noonu guddi ak bëccëg ni ñu wuutee nga xam ne nu roowuñ bëccëg leer naññ ci lu jëru taalub làmp guddi lëndëm këriis ci fu ñu taalut ab làmp yàlla nee na loolu itam la aayaatin li xaw mi yaqiluun ay màndarga yu baree baree ngi ci ay kiimaan yoo xamante ne ñi am xel tey xalaat mën nañ cee xame may kan borom bi subhaanahu wa taala wax ne wal fulki lati tajri fil baxri bi ma yanfau naasa gaal bato yi nga xamante ne ñi ngi daw ci géej gi ngir njariñul nit ñi borom bi subhanahu wa tàggatal ñu ko nga xam ne da ngay dem ca Dubai jënd fa say marchandise def ko ci conteneur bàyyi ñu koy sarse yow nga dugg avion ñëw senegal toog di ko xaar mu déqee foofa jaar ci ndox mi jaar ci ndox mi ba agsi ci poor bi xoolal poids yu toll noonu euh, fi mu jaar di direeku ba agsi fi mu jaar di direeku ba agsi borom bi moo tàggat kon géej gi waaye ay kiimaan yu baree baree ngi ci ci lu nit mën a jànge foofu ci lu mën a jànge foofu yoo xamante ne lu xóot a xóot la waaye yàlla nee na maay taw maay taw taw gi may taw wa ma anzala allahu min alsamaai min ma in fa ahya bihi al arda bada mawtiha waaw yàlla dekkal suuf si ginnaaw bi mu dee nawet xéewal la ndox mi yàlla wàccee ci kaw suuf doomu aadama da ko war a jëfandikoo ngir dund da koo jëfandikoo ngir dund ndax loolu ci xéewalam yi la bokk ci xéewal yim defal doomu aadama la bokk waaye borom bi subhaanahu wa taala nee na ñu xool asamaan ak suuf xool leen ko xollin zuru maasa fi samawati wal ardi wa ma tuxni l nusuru an xawmin laa yuminuun ñu xool kiimaan yi mu nekk aw waaraate mu nekk aw waaraate nekk ak xuppe waaye du jariñ nag ñi nga xamante ne gëmuñu maanaam duñ ca seetantal waaye ñi nga xam ne gëm nañ buñ ci seetantalee mu yóbbu leen fu bari waaye nag boo demee ci ñi nga xam ne gëmuñu yàlla tey jëfandikoo science xëy na yow ni ngay méditer ci yëf ak ñoom niñ ciy méditer day wuute waaye ñoom mën nañuy xalaat eh, yëf maanaam lu leen sonal tey bu subaa ñu xalaat ci nan la ñuy def bam noppal leen jamono ja nit di fóot di fete ñu xool ni muy bombantee ñaari loxo mi ngir tilim ji dañ bañ ca ne dañoo indi machine buy fóot ba ñuy weer weer jafe sax dañoo indi machine buy weer <laughs> maanaam lu lu leen sonal rek ñu xalaata xalaata xalaata xalaat ba indi lu leen noppal ca loola yàlla nee na noonu laa bëgg ngeen di méditer nag sama diggante ak yéen sama diggante ak yéen awalam yaraw an allaha alladi xalaqa samawati wala arda xaadirun ala an yaxluqa mislahum wa jaala lahum ajalan laa rayba fiihi waaye nag fa aba zaalimuuna illa kafura ay borom bi subhaanahu wa di joxañ di joxoñ asamaan ak suuf bind gim leen bind ndax bëgg ñu xalaat ci bëgg settantal ko aaya yu baree baree bari la am na foo xam ne day wax ne awalam yara alladina kafaru anna alsamawati wala arda kaanataa ratqan fa fataxnaahumaa wa jacalnaa min almaai kulla cheyin xayin afalaa yuminuun borom bi subhaanahu wa taala nee na eh, ñi nga xamante ne dañoo weddi dañoo weddi waaye li ma li ma bëgg wax rek mooy ni mu bëgg ñu bàyyee xel kiimaan yi nga xam ne moom la def li mu fi def ba duñ ko wutal ndend li mu fi def ba duñ ko wutal ndend ay jooj yi ma jàng léegi scientifique yi nga xam ne léeg-léeg sax xam-xam ba yóbbe leen ci ak kufru danañ ci dugg lu baree baree baree bari danañ ci dugg lu lu xóot waaw waaye borom bi subxanahu wa taala day am ñoo xamante ne dañuy wax ne àdduna kenn créé wu ko moo créé boppam àdduna nature bee ko créé ñu ne suuf seek asamaan si dañoo taqaloo woon dafa dem ba mu yàgg rek mu jékki-jékki tépp bi mu téppee nag <laughs> waaw suuf si des ci suuf asamaan si tak fam tak yi yi sosu ci diggante bi yépp lu nature bi di sos la nga xam ne eh, boo ñëwoon tey da ngay gis ngelaw li suuf si di jalu bam mu nekkub jal ñu bëgg a wone ne noonu la def ba dooni montagne noonu la yëf yi defee ba garab gi ñëw ñu jël la sedd bi ni muy tourner ndox mi ni muy tourner borom bi subxanahu wa taala nee na loolu maa ko def maanaam du loo xamante ne bi moo ko def am na ku ko def am na ku ko def ki ko def nag la gaa yi mënta xam waaye kooku ku ñu gëm la kooku ku ñu gëm la. waaw moo tax li nekk euh, jëmmi ndox mi di nekk ci suuf ndox moomu di nekk ci suuf di fi jógewaat di nekk ci kaw ci lañ lay wax sax ci wàllu nawet ak taw ne la gox bu bëgg a bari la ab taw nañuy nangoo jëmbat ay garab nañuy nangoo def nangam nañuy nangoo def nangam yooyu yëpp doon loo xamante ne nii settantal ko ak di ko xool ci anam gi tax a gëm yàlla lu am solo la lu am solo la moo tax xam moom baax na borom bi subhaanahu wa taala nee na ñi xam ak xamut duñu yem ñi xam ak ñi xamut duñ yem waaye nag du xam-xam yépp am njariñ du xam-xam yépp am njariñ xam-xam mat a jàng waaye du xam-xam yépp ngay jëfe mu jariñ la am na loo xam ne da koy xam ngir moytandiku ko am na loo xam ne nag koy xam ngir jëfe ko loolu daa mat a xàmmee am na xam-xam boo xam ne da nga koy xam waaye boo ko xamee ba noppi nag da nga koy moytandiku moo tax mat naa xàmmee man naa xàmmee am loo xamante ne da nga koy xam waaye boo ko xamee da koy jëfe mu amal la njariñ mu amal la njariñ boo taalee tele bi di seetaan léeg-léeg e, nit génn sol col gu baaxut boo dee seetaan ak say doom da ngaa war a wax ak ñoom léeg sax mu nekk ab artiste waaye lim sol da ko sol ci podium bi waaye du ko sol këram xalaatu ko wax ko ni ko kii moom lii da koo defub liggéeyam ñoom artistes yi ñooy solo nii ci li ñuy def waaye nag ku yiw tey dox ci biiri nawleem du soloo col gu mel nii mu leer ci boppam du wax ne rek boobaa seetaan télé dafa araam wala lii xool ko baaxut wala nangam nga koy moytu ba mosu koo gis am na ñoo xam ne noonu lañ leen yare am na lu bari seen bët mosu cee tegu seen xel mosu cee tegu waxuñ leen ko xamuñ ne mi ngi fi yëguñ ko sax waaye bisay ñëw ñu am tuuti ak rëcc wala àdduna ni mu bindoo ñu dajeeg mbir moo xam ne keroog lañ ko mas a gis loola fab bi leen loola fab bi leen ñu topp ca di nàng-nàngi ba seen dund gépp yàqu waaw ba seen dund ga mujj yàqu doon kasara ci loo xam ne jaru ko te pourtant ce yar ba nag buñ leen ko wonoon bañ xam ko ñu wax leen lumu ba noppi lool leen ko duñ ca complexe duñ ca complexe te complexe boobu euh, muy ak yaras mooy mooy li nga xam ne daa mën a yàqal nit mooy li nga xam ne daa mën a yàqal nit boo xoolee fii ci dëkk bi sax ñi nga xamante ne ñoo sànku nañ ma baal mujj doon ay bay la puude yoo xamante ne seenu dund yàqu na day bari lool ñoo xamante ne dañoo wàll si yaan si dañoo wàll yaan si ci taax yi xëy na nag danañ dëpp moom ñaare day fekk nag mu weesu lu baree bari yàqu ci seenug dund te li leen koy yóbbee toppandoo lay doon maanaam toppandoo toppandoo ak bëgg a wane ne bokk na te bokk bokk lu moom daa soof ndax eh, lu ne danga ko def ngir bëgg a bokk lu ne danga ko def ngir bëgg a bokk borom bi subxanahu wa taala nee na ñu xool kon ci nim binde asamaan ak nim binde suuf ñaare fu ko waxee rek da cay teg ab taw aay yi ma jàng yëpp aay ju ne xéewalug ndox bokk na ca ndax daa bokk ci ndox. Eh, borom bi nee na ci laay def lépp luy dund mu ciy dund ndeysaan ab laaj bu am solo boo xam ne ànd naa ko soññee mooy afalaa yuminuun walaay xanaa du ngeen gëm du ngeen gëm ne man maa fi nekk du ngeen gëm ne kàttan gi maa ko moom waaw du ngeen gëm ne kàttan gi maa ko moom maay seen borom subhaanahu wa taala am man xalaqa samaawaati wal arda wa anzala lakum min alsamaai maa fa ambatna bihi xadaiqa zaata baj maa kaana lakum an tunbitu shajaraha a ilaun maa allah bal hum xawmun yahdiluun allahu akbar am na ci aayu tegaloo yu bari ci saar woowu ma doon jàng léegi di sóoratu namli su ma juumut yoo xam ne bu waxee ba noppi rek laaj ne ndax da ngeen fee am jeneen yàlla ju dut man ndax damaa am àndandoo ñu ma doon dimbali ngir ma mën a def lii waaw ndax du ma bind asamaan ak suuf ah bind du ma wàccee taw ndox mi jóge ci asamaan wàcc loolooy taw ma dundal ci suuf si saxal ci gàncax gi waaw saxal ci gàncax gi loolu yëpp maa ko def waaye fi mu ne am na ñoo xam ne nee nañ ma defoo dara am na ñoo xam ne yàlla nee na bi mu tawee ba noppi duñ ma sant waaw ñoom duñ ma sant ci taw bi am na ñoo xamante ne nii biñ duggee ci gaal gi gaal gi daw ba teer ca tefes ga duñ ma sant fa lañ ma naan ñukk nekk ci seen bopp ma waxe ko noonu waaye fàtte nañ ma duñ ma sant yàlla nee na xéewal yi may defal nit ñu néew ci nit ñi ñoo may sant waaw ñu néew ci nit ñi ñooy yëg ne liñ am man la liñ am man la ñenn ñi jiiñ nañ ko ñeneen ñenn ñi jiiñale nañ leen ko ñeneen yàlla nee na bëggewu ko noonu waaye waaye gore leen nag gore leen waaye foofu sew-sew bi fi nekk mooy daa bëgg nga sant ki xéewal gi jaar ci moom ba agsi ci yow waaye fi mu ne baatu sant moom boo ko toppee day direeku rek waaye ci yàlla la jëm waaw cant moom da ngay diri waaye ci yàlla la jëm da ngay sant ki xéewal gi jaar ci moom waaye ki ko jaarale ci moom nag ki ko jaarale ci moom nag mooy borom bi subxanahu wa taala waaye daa bëgg nga gore daa bëgg nga gore bañ a bokk ci ñi nga xam ne dañuy suul jëf am na ñoo xam ne du sant mukk du ñu sant mukk du waxal nit sax lu baax waaw ñoom eh, ku leen defal lu baax safaan ba lañ leen di faye lañ lay faye olof da ko daan wax di baat yoo xam ne. yarkat yëpp war a xeex ba mu ba doon lu fi xewi waaw dañuy wax ne eh, eh, garab bu ne nit mën na koo jëmbat toog ca ker ga ba mu des garabu nit waaw nee na nit moom te loolu daa bari di am na ñoo xam ne ñi leen tax doon liñ doon mënatuñoo jëflante ak ñoom diggante yàqu na ndax santaasu doomu aadama yi da ciy aju nag léeg-léeg nit ne maa la jàppale woon rek tax moom nag mu jàpp ne waru laa wàccee mukk foo toll rek loolu la lay fàttali mu nekk puwaay sa kaw dox gi moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñ borom bi mu ko bañalee loolu daa mel ne ci wàllu yaram ak fi mu jaar jaaruwaay bu bu metti la boo xamante ne li ko nit naan bor sàngam ko lebaloon te muy lu metti loolu lu néew la donte mën naa am ci sira borom bi subhaanahu wa taala nee na moo bind asamaan ak suuf waaye nag sama samaawaati boobu asamaan rek la wax bi xayri amadin tarawnaha asamaan a ngi nii amut ay keno yow boo bëggoon a mbaar rek fu ne danga fa def poto boo doon kuule dañ naan la feer sàngama baax te kat as ciment dong ngay aj ci kaw as ciment su bari su bariwut lu ma tut eh, trente mètres yu carré moom ngay kuule waaye da nga wut feer da nga rabb lu ne da nga ko def wutal ko ay pieds yu ko téye borom bi nee na asamaan a ngi nii ma aj fi mu aj maa ko bind waaye bi xayri amadin taraw naha wa alqaa fi l ardi rawasiya an tamida bikum wa basha fiha min kulli dabbatin waaye la ma waxoon léegi fu mu ko waxee rek daa tudd ab taw ndax xéewal gi nekk ci ab taw wa anzalna min as-samaa'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim xoolal loolu daane nag lii maa ko def loolu moom man yàlla maa ko def hada xalqullah waaw hada xalqullah fa aruni maatha xalaqa min duni waaw ñi ngeen ni ñooy samay wujju di leen jaamu jàppi leen ay yàlla ñu dut man ca ñay jaamu leneen ñii samp ay bant ñii di jaamuy béjjën ñii jël palaasu yàlla teg fa teg fa leneen baa keneen nee na ñooñu nag wax leen ma luñ def wax leen ma luñ bind ñoom wax bañ buy metti rek buñ ko fanaanoo woon àdduna tukki seen àdduna tukki te boo muy tuut am nañ soxla su fajuwut alxuraan laay wax waaw alxuraan lañ wax yàlla nee na moom mooy yàlla ku dul yàlla ab jaamam nga jaam ñi nag rawante nañ yàlla nee na ñu wormaalante kon waaye bali zaalimuuna fi dalalin mubin yàlla nee na tooñkat yi tooñkat yi dañoo ne ci réer dañoo sànku tooñkat yi dañoo sànku dañoo ne ci ak réer réer gu wér yàlla nañ ci yàlla musal waaw tooñ mënta weesu yàlla nee na li ma def nii lépp nga wutal ma wujj woo xam ne mënoo maa wax ni lii la def ba pare ne ko ne maag moom nañu nañu wujje xanaa bu doon ci nit la rek wujju bi nga xam ne togg na yekk keneen ki aaye amul lum togg tegalee tànkam te kee mooy débrouiller xanaa nag nga war xam ne nag am na lu kii am te kii amu ko bokk wala sax dum nawleem borom bi subhaanahu wa taala nee na alam taraw anna allaha lakum maa fi samawati wa maa fi l ard yàlla nee na moo ñu tàggatal li ci asamaan si ak li ci suuf mu dellu siwaat ci bind gim ko bind ak am gim am wa asbaxa alaykum niamahu zahiratan wa batina waaye li ci metti mooy wa min annaasi man yujaadilu fillahi bi xayri ilmin wala hudan wala kitaabin mubin munir wala kitaabin munir ngeen baal borom bi nee na am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy werante ci yàlla ci loo xam ne amuñ ci benn xam-xam ci amuñ ci benn xam-xam waaw ñoom xam nañ lépp kon ay kone tuu lañ <laughs> ay kone tuu ci suuratul Luqmaan la ko yàlla wax nee na te fekk muñ ca benn xam-xam am na beneen aaya wala jeneen aaya joo xam ne ci wàllu bind asamaan ak suuf ji may wax aaya yooyu te di ko jeexale ci aaya jooju sax mooy awalam yaraw anna anna allaha alladi xalaqa alsamawati wal arda walam yaxya bi xalqihinna bi xaabirin ala an yuxyiya almawta bala innahu ala kulli cheyin xadir wallahi innahu moom yàlla ala kulli cheyin xadir lépp la man yàlla tëlewul dara yàlla tëlewul dara daa am loo xam nag da koo jomba def moom moo tax day bàyyi nga di ko defal sa bopp moo tax boo ko bàyyee lépp toog fasta say loxo bañ a jéem dara mun la danga maa ñàkk ay worma yow ku ñàkki teggin nga waroo koo defee noonu waroo koo defee noonu nab nabil nag boo demee ba li nga man jeex nga xaar ma ma defal la li nga mënut <laughs> waaw xëyal kër-këri xëyal sangul solel yére bi nga ko amee génnal bu dee da ngay jaay lalal waaw ah, kay ya ca def nag te mënaloo ko sa bopp nga toog nag xaar ma nag ma ñëw defal la ko waaye ne gàng tëdd sàngoo mbàjj mi di xëcc rek ak sedd bi yow yoor yoor fu ne nga tàllal fa sa loxo ñaan bu dëkk bi doxoon nga jiñ ko yàlla yàlla nee na yaa ngi may ñàkki ay teggin duma kooku moo tax mu ne mooy ki nga xam ne moo bind asamaan moo bindu suuf mooy dekkal mbindeef yi waaw mooy dekkal mooy dekkal ñi faatu te loolu mën na ko mën na ko bul yaakaar ne mukk dafa jafe ci moom waaye mën na ko kon xalaat yooyu ngay xalaat di méditer ata amul maa ngi woon ci fii xalqi samawaati wal ardi waxoon naa ne fu mu ko waxee rek day joxoñ suuf si waaye nag fii maa bitul ard fii maa tunbitul ard ci li nga xam ne mooy saxe ci suuf si loolu itam borom bi subxanahu wa taala bëgg na nga di ci nga di ci méditer xoolal suuf si xalaat ci ak ni nga xam ne noonu la bindoo buñ ñu yàlla mayee ñu dund ba altine jàmm danañ ñëwaat ci beneen buntu beneen bind boo xamante ne day toftalu ci bind bi ñu daaneele ci xalaat ci yàlla bind gi bind asamaan bind ko suuf.